que c'est prudent ci sa posture bon mën nga nekk médecin nga am des convictions politiques c'est votre droit oui, bien sûr, tous. mais est-ce que c'est prudent ci sa posture euh, médecin mhm. ngay mm -hmm. afficher yenn position politique publique yi à quel, à est-ce que est-ce que yaa ngi respecter la la les, les, les limites c'est pas, pas même une conviction politique c'est mm -hmm. un choix de on a un de vote on va voter c'est pas parce qu'on vote qu'on est Quand j'ai voté pour Macky, j'étais pas à pair. Je suis le même Babacar Niang. Qu'est-ce qu'ils vont me la clinique, on vient soigner des gens. Hein? Am na benn affaire bu ñëw bi passé di gannaaw dañuy tere ñëw fii mais man damay faju fii ba mu neex ma. ah bon mu ne ah dañu commencé tere nit ñi ñu ñëw foofu. <laughs> désolé comment ça va vite ah ne la buñ ne la waa la. ça veut dire que waa APR amatuñu droit ñëw foofu non <laughs> dans la logique populaire.